sant bu baax a baax alhamdulilah seetaan nga combat MMA yi amoon sànq. waaw seetaan naa ko seetaan naa combat yëpp ah. yaakaar naa combat la xam trois. waaw je pense trois am na bu Pape Pape Sène quatre waaw quatre Pape Sène am na mobile deux. am na Bouger ak Mali Niang bon après mën naa mën nañu jàpp benn combat moo ci am muy combat bu bu baax bu tax ñu wax combat bi xam nga ci des moom ay <laughs> lamb lamb la quoi. premier combat premier combat bi dafa de. waaw ba ñëw combat bi wa waaw mais léewtoo bi kay moom jaaxal léewtoo bi ñu doon def xam nga après bon <laughs> mun nañu mun nañ jàpp ni am amaguñu automatisme yi entraîné wuñ entraînement bi ci war lu bees la ci ñoom xam nga Pape Sène ñu ngi koy masow bu baax baax parce que dafa dafa gaañu ci baaraam bi xam nga moo dugg ci grillage bi ñu ngi koy masow bu baax a baax waaye seetaan nañ aussi combat mobile bi xam nga boucher aussi di ko wax bravo man personnellement yaakaaruma woon ni dina tenir loolu yëpp parce que MMA ring bi dafa metti xam nga mm. gis combat bi mu def def ci ay yu am solo macha allah waaw. mais combat kii combat mobile ak ak ak ak ak suudu bi. suudu ndeer suudu. Hmm. combat boobu moo ci gën a naqari de. est-ce que commune bu commune. mais si am parce que moom maa ko dégg moom wax na ci toldo nee na arbitre bi moo nekk ab dóor dóor ci kanam amul mais c'est faux c'est pas vrai parce que Malick ah. Niang dafa ci kanam. Pape Sène ah. da ko dóor ci kanam loolu c'est faux amul ba pare bi ñuy tëgg ñoom ñaar nekk ci suuf ñu ngi wax béykat mi naa leen bàyyi leen waxtaan bi da ngeen xeex xëy na peut-être liñ leen au dernier moment parce que doon ñoom ñaar ñoo waroon daje seen adversaire mm. bon visiblement euh, amoon na ko mbir combat bu neexul la ah, combat bu soof la xam nga mooy loolu ko mm-hmm. mm. adversaire am sax ñëw na super étoile mais tardivement la ñëw nee na nee na wax noonu daal. waaw am na gars yi ci def ay révélation ku ci mel ni Fëgala dugg na xam nga Fëgala moom dëgg moo ko yaax am na lu mu ci léegi xam nga gars yi ñoom ñëpp jot nañ seen xaalis parce que ñu ngi dégg di wax mais li Fëgala moo ko wax ci gémmiñam parce ñoom ñoo tappale pour bañ a combattre je pense que loolu ñoom ñu ci war a communiquer dinañ ci communiquer quoi muy saafu mu geet peut-être ak ak ñi mu liggéey bi. Mm-hmm. Bousse yaa ko wax sax nga ne am nga mbetteel ci moom surtout bi ñu ko wëree ndomb. waaw bi ñu ko jël boobu bu doon bu doon ci arène la top 5 la jëm. mooy jël bi Moussa Ndoye doon jéem a daan euh, Sa Thiès xam nga vraiment jàmbaar la parce que MMA euh, Lamine ring bi ni nga koy gisee noonu boo defee ñaari va-et-vient day sa adversaire dafay sonn dafay dem nañ saani combat MMA bu Pika ak deux giga bi ñuy combattre ci France dem nañ fa xam nga France ñu ngi jëm déjà seen troisième édition parce que France bi ñu fi bi ñu fi autorisé euh, MMA yàggul troisième édition bi incha allah mi ngi ko saani mais te pare ñooñu dañuy entraîné dañuy xam ñoo xam yëpp te dañuy sonn donc rawatina imaginer koo xam ne entraîné parce que bouger entraîné wul entraînement bu tax ñuy wax. donc force oui jàpp ma woon ni dina ci dina def li mu def nii quoi vraiment jàmba jàmbaar la la. kii mi fecc mi na effet xam nga jëf-jëf aussi bon guerrier la quand même parce que au moins ñoom ñëw nañ combattre nañ dóorante nañ xam nga xam nga songante vraiment te moo tane woon combat combat mobile bi ak fuudu quoi. vraiment ay jàmbaar lañ ay débutants quand même euh, franchement je dis que c' bien pour ay débutants bien. léegi ñu ci grand combat bi Malick Niang mhm. Abdou. oui mhm. c' était c' était c' prévisible mais di féliciter Malick Niang déjà parce que koo xam ne yow mbëru Sénégal nga woon nga toog huit ans combattre nga futteeku indi état bi tey xool Malick Niang. Mhm. yëpp même ñu combattre du ñëpp Malick Niang cundum ak Soudou ak Aliou Mané ñoo ci am forme bu tax ñuy wax Aliou Mané la mos a mel. mais bu ñu xool ci forme physique. ñoom ñett ak duubun ak duubun ñoo ci am forme vraiment bu tane donc tey ñu doon combat gis bi mu andi gis nga def na fulla def na fayda wa chapeau dèjà loolu ne man Malick Niang sax bëgg mu dellu si ci parce que Malick Niang bi ma gis am na place am ci làmb ba tey mm-hmm. bi mu ñëwee vraiment teg na ko ci yoon xam nga ñëw na activé ko ngekaw que boo xoolee même ñoom Francis Ngannou par exemple moom bu leeree ni moo la mën premier round bi la lay affiché la la lay la lay jeexal parte kawo Lamine Big TV kon ni loolu waaw Malick Niang donc bi mu ñëwee xam na ni dara nekk fa xam na ni kii moo ko mën donc mu teg ko ci yoon combattre na et puis je pense que mën na am dara ci MMA bi bu góorgóorloo dëggantaan vraiment. Euh, mais xeex hmm. bi est-ce que jaar na yoon. parce que Malick Niang bi rek moom xeex bi xam nga lu tax mënuñu mënuñu mënuñu ko parce que xam na ne moo mën adversaire am parce que ni mu xeexee noonu boo xoolee Francis Ngannou am na combat yoo xamante ne bu ko léeg-léeg moo la mën. day ñëw day wàccee gardam ñëw dóor la du yégee gardam du xeexaax jaadom parce que xam na ne moo la mën donc Malick Niang ne moo mën Abdou Diouf fuuf xam ne entraînement bi mu xam na ne moo ko gën a maîtriser bi te ko xoolee xam ne yaa gën a xam nga donc foofu vraiment duñ ko fa mën a jugé léegi ce que bu dajee xam ne peut être je pense ñu koy mën a jugé ci buñ ko booleeg athlète vrai athlète boo xam ne day def pratiquer mais en tout cas bi mu woon na sawaay combat bi je pense neuf secondes ouais, voilà, 13 secondes, achevé ko. mu dee wane ne vraiment caaxaan quoi franchement chapeau à lui di di encouragé aussi Abdou Diouf lay wax ne MMA du ay caaxaan MMA du caaxaan ah. dëgg la sérieux ah, ah, ku baax sa réaction lan la maa ngi lay ziar. TV Toumane maa ngi lay ziar. ah delloo ziar. TV waaw. Fallou Mbacké la from Allemagne. naka mu yaay cool chinois bu mag nag. <laughs> damay bëgg dugg say live bu baax waaw combat yi nag vraiment neex na de mais daal man Boucher moo ma def surprise. moo ko def ñëpp moom moom moom. man foogoon naa ne jëf jël carrément day ñëw ray ko man moom vraiment dama tiitoon parce que Boucher lay supporté sax waaye tey moom dafa def surprise boo xamante ni vraiment jaaxal na ma non Malick ñaa moom man xamoon naa ne moom vraiment moo man Abdou Abdou Diouf seen forme yi biñ simee ko ma xool rek xam naa ne Malick Niang moo man Abdou Diouf u sax et puis kii tamit nu mu tuddati euh, Pape Sène infrarouge waaw combat yu neex la parce que nag moom vraiment combat yu am solo la mais Malick Niang moom comme Sénégal yi ñimuñ ko vraiment dañ ko ñimuwut gars yi ñimuñ ko de Malick Niang mi lox yi neex na de. gars yi ñoo ko ñemewul wala moom mooy taamu. waaw xam nga nag moom benn affaire tamit dama koy seetlu moom gis nga mbër bu fekkee da nga jógee ci defet ay huit ans nga toog ko bëreewuloo vraiment il faut nga jël koo xamante ni da nga koy daan après nga def beneen échelle. mais mbëri Sénégal yi tey damay gis bu ñu leen daanee dañuy bëgg a toog fu ñu toogoon alor que du noonu il faut nga jël nit daan ko ba pare. parce que mm-hmm. wàcc na wàcc na moom nekkatul fu mu nekkoon. gisoon naa fi ñu ngi koy tëggal ñu ngi koy jox ay nit mais day laaj yoo xamante ni et puis doo laaj xaalis am na fooy toll. waratoo laaj xaalis waratoo laaj dara da ngay ñëw prouver demaat ci sa échelle bi nga nekkoon. Mm-hmm. Malick Niang nag foofu la war a nekk. dafa war a hmm. ñëw ci échelle bi même ay jéen kay rek ay ku mën a jël daf ko war a mën a jël même bu ko mënee mu def avec manière après dem su demee dafay nekkaat ci kaw mais mënoo nekk nga ne waaw yow nekk si suuf ba pare taxaw foofu rek nga ne da ngay ñëwaat nekk ci kaw loolu moom vraiment day métti parce que ci làmb la bokk boo xoolee huit ans bëreewul depuis Sa Thiès ba léegi dafa xaw a dafa métti trop mais neex na trop làmb ji moom. Ama Baldé Ama Baldé. Hmm. waaw depuis ci Ama Balde depuis ci Ama Balde waaw depuis ci Ama Balde te defet ci la jógee. mais mais mais Tomaane lii dafa mel dina ko may courage pour mu ñëwaat dugg ci làmb ji de. Ah, effectivement man maa ngi wax sànq maa ngi koy wax sànq maa ngi naan waa Yoff ñoom ñoo ko war a jàppale. xam nga parce que bul fàtte ne promoteur yi aussi léegi amatul secret ñoom mbër bi mobilisé la ñuy teg déjà. ah oui ah, donc waa Yoff foo ñu jàppale ko xamal ko ne ko ñoom vraiment soxla nañ champion parce que Yoff dafa waroon champion dafa waroon mbër ko. donc moom tamit aussi mu def jeew jëm ci ay mbokkam dellu ci ay mbokkam fekk bëgg na fekk bëgg na bëre. beneen bi ci topp aussi mooy waaw beneen bi ci topp aussi saa yi wax il faut mu xam ne de un défaite la jógee Ama Baldé da ko daanoon deuxièmement dafa toog huit ans bëriwul donc faaw mu nangoo wàcc aussi xam nga te par exemple maa jaa ñu proposé ay forza forza forza bañ koo jël. loolu mooy làmb la mooy làmb ji làmb bu neex la donc ci wàllu cachet mu xam ne aussi xam nga tey moom moo war a prouvé waat

loolu kay comme sama mbër mi Balla Gaye mënuñu ko am. <laughs> loolu moom yaa ci yegg quoi. ah Sinoa mag laa waaye mooy loolu. mais ne daal ci am xamante ne dañoo jëloon combat ba pare jàppee ko foofu. merci foofu laa bëggoon a ñëw nag. parce aussi bu fekkee ne vraiment ñoom dañuy def MMA pour une prochaine fois nañ góorgóorlu quand même xam nga dem entraîner ba pare xam règlement bi xam nga parce que waa ji ma koy wax à la fin maa ngi sànq ñi ngi retaan ci toldo mi ngi naan euh, merci d'avoir suivi le MMA africain waa ji ma ko wax mu ne MMA africain te MMA africain amul MMA MMA la xam nga ah ku ñoom Pape Sène ku ci mel ni ñoom mobile ak ñoom suudu xam nga euh, vraiment nañu gën a lu ñu professionnel xam nga xam ne aussi dañuy fexe joxe benn image boo xamante ne ah euh, c'est une très image ci ci mm-hmm. sénégalais yi xam ne sénégalais yi sérieux parce que man naa la benn affaire lépp lu jëm ci wàllu sport de combat dañ ci bàyyi xel Sénégal ndax suñu lamb bi ah dañ leen ci bàyyi xel donc nañ ci góorgóorlu def ci sérieux ñiy organiser événement bi aussi la prochaine fois. ñuy a def vraiment ñu sérieux jox leen ay entraîneur entraîneur leen ko bu baax boo xamante ne ñu koy seetaan du pour ñi ñuy tëgg mais pour seen rakk yi nekk Sénégal parce que ñoom bu ñu ñëwee def MMA teg ko ci yoon gars bu ñu la gisee dinañ ah Sénégal kat am na ay nekk yor micro di reporter la ko yoon dafa naan Lamine Seck mii am na yeneen Lamine Seck yu nekk Sénégal ki agsi na ba pare ñoom dañ lay bàyyi de côté dañ naan am na yeneen Lamine Seck yu nekk Sénégal wala bu njëkk école de football yi ci Dakar rek nga leen doon gis mais depuis bi ñoom Sadio Mané percé gars yi def documentaire gis mu dëkk fu sore dañ ok kon Sénégal ci biir village yi am na ay joueurs de foot léegi boo demee ay Podor ay Fungulemi ay Bambali fépp tubaab yaa ngi fay dem dafa investir bu neexee yàlla loolu moom. di mi ngi ñëw quoi incha allah. super étoile Malick Niang MMA. yee Malick Niang mi mbaa gars nañ ko. Malick ñaam mii ma gis caaxaanut de. combat la de super étoile Malick Niang MMA. combat la bu ah, mu hmm. entraînement de super étoile mii ma gis nii entraînement wu de et puis Modou Gueye tamit buy boole ay nit il faut mu xool ñoo xamante ni tamit dañoo taxaw gis nga Malick Niang mii boo ko boolee ko entraînement wu mën na ko parce que moom dara caaxaane wu ko. fowul de. xam nga ab bi vraiment bi mu futteekoo rek moo waru doon ko jox combat moom Malick Niang parce que tamit comme li nga wax rek affaire bi Amérique la te lii du affaire u caaxaan da ngay gis ay reporter da ngay gis état bi def ci ay nangam xam nga tey vraiment li te image Sénégal la yi di yóbbu xoolal tey mm-hmm. mais moo bëgg affaire u kaf sénégalais parce que am na ñu jël combat bi tey am na ñoo xamante ne ay ñëw ñu indi ay affaire rek ñoom ñu daw jël xaalis bi loolu tamit c'est pas maa gis fëgala mu ngi koy nettali fee ci live tëldoo bi loolu tamit xam nga sénégalais il faut mu respecter tamit parce que ñun tamit ñi nekk ci bitim réew sénégalais dañu am fuñ ko teg tey su ñuy def benn MMA vraiment dañ ko war a respecter et puis moo tamit muy xool ay compétence yoo xamante ni dañoo nekk ci MMA mu leen di tëggal ay combat mais vraiment yan na ma yàlla baal mais ku ci mel ni ay Abdou Diouf ay Pape Sène ñooñu vraiment tamit amuñu benn compé amuñu benn compétiteur boo xamante dañ leen di tëggal vraiment man tak ki ma bett tamit mobile daf ma xaw a bett trop mobile moom ak ni yaramam bi mel xaw ma lu muy wëccu man mënuma comprendre tamit et puis Sénégalais nañ bàyyi buñ amee problème rek naan dama feebaroon quinze jours maa ngi koy gis si live toldo bi ay boo feebaree da ngay wax da nga feebar après nga kii mais événement bi daal ko koo caaxaane parce que tey moom soo gisee rapporteur yi sax da ngay wax ne waaw ñii ñu ngi saboté ba koy tuddee MMA africaine MMA africaine te MMA moom international la quoi loolu moom bu gars yi di defati na nañuy jël responsable gars yi entraînement indi physique yu doy mais mënoo def mm-hmm. MMA ba pare sa biir bi yem ni jigéen buy biir vraiment ci kàddu gi mais mooy loolu daal Franc Franc dugg na sànq Toumani Franc dugg na sànq ne pare na pour la sama sama sama sama rakk jooju maa ngi koy nuyu baax mu sama waaye la na droit laaj ko xam nga ko ah bu fekkee ne moo pour ko combat bu te man combat boobu sax bu ko doon tëgg moom nag organiser nag waaw mais maa doon dégg maa dégg mu nag mu dafa mel ni moom tafaatin la gën a soxla parce que dégg naa mu ne tafaatin Malick Niang boobu it combat la de. waaw mën ne nekk aussi exemple bu mu doon joxe rek mais en tout cas ak loo ci mënti dégg daal. même aussi Sénégal tey na bàyyi xel aussi booy nga xam ne ñu ngi nekk Sénégal def MMA ku ci mel ñoom Moussa Togola xam nga parce que Sénégal lu mu dee dee am na Sénégal yoo xam ne xëy na duñu ay mbër ñoom ci MMA bi lañu lañu lañu lañu kii euh, di leen ci boole dina nekk lu baax xam nga.